Et vendredi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis euh, ak suñu chroniqueur di suñu grand euh, ci wàllu taskatu xabaar di grand Pape Ndiaye justice bu Walfadjri moom nag xam ngeen ni chaque vendredi bu ko ko temps may rek day ñëw fi ñu ànd ensemble décortiquer li nga xamante ni moo gën a fës euh, ci actualité de la semaine grand Pape au plaisir de te retrouver bàyyi la nga. mais plaisir partagé soxna Penda mu sell mi. waaw tey de bopp bi ma jàmm neex na comme ni ko Mali waxee sax. waaw kañ ma mm. di amaat plaisir euh, ñëwaat fii ci Sénégal 7 ngir mm. waxtaan ak yéen. Mm. di nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñu ngi leen di topp ci seen euh, production yi. di leen yeggal félicitation askan wi également gars yi nee nañ temps yéen a poñe presse en ligne bi. waaw loolu de am na moom temps yi moom dañ leen dóor yàlla jëm kanam. jeex na euh, donc grand nag sans plus tarder xam nga ñun buñ ñu déggante ma nag suñu waxtaan day neex. Mhm. Euh, fi ma bëgg nañu dooree nag ñu gën a mën a gagner du temps euh, mooy lu tiis bi nga xamante ni moom mooy génn ba àdduna Idrissa Goudiaby mhm. finalement après beaucoup de jours jot nañ ko enterré tey ñëpp nag ni il était temps parce que bi mu faatoo ba tey ñu ngi ko téye ngir amal ay autopsie ak ay expertise ñu fas yéene woon ci amal nag contre troisième contre expertise ci cadre procureur bu tort mhm. ginnaaw janoog taskatu xabaar yi mu defoon finalement euh, troisième contre mhm. euh, mhm. di leen masaw bu baax a baax ci li nga xamante dal na leen di ko masaw waa Sénégal yëpp di ko masaw waa ko masaw bokk nga ak moom mbokkam nga wala jege ñaale moo xam sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak waa bitim réew di def la même chose également famille yi nga xamante am na seen doom yoo xam ni faatu nañu ci ay manifestation mm-hmm. di ko ñaanal euh, fa mu jëm gënal ko foofu fi nga xamante ne bàyyi na ko fi mm-hmm. bàyyeeku na ko fi di ñaan tamit lu mel nii euh, vraiment gëj fee mm-hmm. loolu lu ñu war a lu a la bon leneen li ci am mooy jotaay bi weesu ñu ngi ko doon waxtaane mais mel ni am na évolution ci li nga xamante ni moom mooy mbir mi wax fàttali nga ko léegi procureur bu Ziguinchor annoncé woon na une troisième contre-expertise mais finalement dañ ci reculer mhm. parce que en réalité troisième contre-expertise boobu amul sens mhm. ndax li tax mu koy def mooy ñaari autopsie yu njëkk yi dañoo contradictoire mhm. waa léegi bu defoon troisième autopsie mu annoncé beneen mbir boo xam ne ñaari autopsie mm. waxu ko lu ñuy def quatrième autopsie mm-hmm. amul n'a pas mm-hmm. te ay mbokkam soxla nañu ñu jox leen seen ñëw ñu denc ko ba ñu mën def dëj euh, dugal ci cycle boo xam ne doo ci mës a génn mm. parce que autopsie bu ñëw wax leneen lu bees mm. tu seras obligé defaat beneen finalement ci ban ngay sukkandiku est loolu du dugg ba tey ci lapsus de communication bi sax man tâtonnement laa ci gis tâtonnement xamante ni le procureur de Ziguinchor def na ko wane na ko dans ce dossier. ndax nga def une première expertise mu ne la arme a arme blanche moo ko rey nga def contre expertise mu ne la arme à feu. à quoi bon ñu def beneen troisième expert amul benn sens donc on on pouvait vraiment s'en tenir ci résultats yi nga xamante ni moom mooy deux premiers résultats yi. Mm-hmm. tout sans sachant que nag. des poursuites autopsie bi parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans dossier Chérif Ndaw ba ñu njëkkee def expertise première expertise bi dafa ne mort naturelle deuxième bi ne kii dañ ko torturer ba mu faatu ci le juge après ñu daal di médecin ba ñu ko def loolu dañ ko poursuivre inculpé ko. mais li waral ne ñoom ñooy def expertise yi xanaa amuñu xarañ. xam nga xam nga expertise xam ne du caaxaan parce que justice su lay sukkandiku pour àtte si lay sukkandiku pour décider ci carrière nit ki. dama ma comme le document médical de complaisance yi nga xam dañ koy certificat médical de complaisance hmm. justice mën na cee sukkandiku tëj nit yàqal ko avenir am koo xamante ne ku bëgg accuser nit viol ñëw nga defar ko certificat médical viol nga xam ne léegi kuñ ko déclaré coupable lu gën néew ci at yi nga ci mën a jël dix ans la donc bu fekkente ni kayitu docteur boobu noonu kayitu yaa neex la document de complaisance la yaa ngi encouragé justice pour que mu tëj innocent yàq avenir innocent. Euh, ñooñu bu ñu fekk dañ teg yoon da leen topp yan daan lañ ci war a mën en man li may prôné sax du ñu emprisonner le médecin parce que man emprisonnement systématique ci régime bu répressif man du ma ko prôné mais au moins que ñu xam dans quelles circonstances comme ni ñu ko defee woon ci affaire Chérif Ndaw parce que man mënuma comprendre une même affaire. ñu bëgg ci am deux jurisprudences mm. lan moo tax ci affaire Chérif on devrait en faire de même pour dans l'affaire Idrissa Goudiaby premier médecin bi def affaire bi dañ ko war a convoquer déglu ko xool dans quelles circonstances la joxee lii naka la mën a fexee ba ba ba détecter pour que leeral yu mel noonu parce loolu mm-hmm. il y va de la crédibilité de la justice parce que yu mel ni bu ñu ko bàyyee euh, yu bu ñu defaloon imagine bu ñu defaloon contre expertise mais kon Idrissa Goudiaby faatom bi naru mujj fenn dañ naan ci raaxal loola rek manifestation nar mm-hmm. woon mu ñu fen kon ñaata autopsie lañ fi def yi amul contre expertise yoo xamante ne ay faux résultats lañ joxe mm. donc c'est extrêmement important yu mel nii justice marqué le coup ba kenn dootu fi defati ay dëkk loo xamante ni day indi jiixi jaaxa ci joxalin julli boo boog dañuy induire justice bi en erreur loolu lu jara lu jara lu jara bàyyi xel mais bi nga xamante ni euh, nemeeku nañ ko xaj Khalifa Sall teew fa ñoom day ci ak ñoom Ousmane Sonko di effectuer le déplacement mm-hmm. ñoom Habib Sy dem ba foofu teewee li nga xamante ni moo moo di enterrement Idrissa Goudiaby mm-hmm. waaw loolu c'est un c'est un signal fort parce que devant tout après on ne ci parti boo xamante ne seen doom ñàkk na fa seen bakkan ci manifestation ci anam yu métti te kooku ba génnoon di def manifestation mu leeroon ne ci seen ñoom ñoo ñoom ñoo bokk boor donc c' est tout à fait normal ñu dem massawu leen bokk ak ñoom li nga xamante ni moom mooy tiis bi ak naqar bi am na nag ñu ko gisee récupération politique mais peut-être loolu mën na ci am peut-être tamit mën na bañ a demee noonu mais en tout état cause euh, Sénégal ci euh, Casamance ci Sénégal lañ bokk ay sénégalais lañ ko ñu amee ñu fexee dem en pleine période campagne euh, ñoom ñëpp ñu bàyyi suspendre seen activité dem ba Ziguinchor pour teewee ko ndax mën nañu ko jàppee tamit récupération politique waaw mais xam nga dans l'absolu geste bi mënu ko ñaawlu parce que waa Casamance am nañu lu leen métti seen doom faatu na ñu dem pour masawu leen bokk ak ñoom naqar bi xam nga loolu kenn mënu koo ñaawlu kenn mënu la ne amuñu droit amuñu woon droit def lii tamit mooy même bu fekkente ni wala peut-être tamit mën nañ jàpp ni dañ cee xaw a am tuuti euh, part de responsabilité vu que ñoom ñoo woote woon ab manifestation waaye du ñoom ñoo rey en tout cas quelle que soit bu ñu mënti dégg amee lu leen métti ñu dem ma saw leen d'autant plus que manifestation bu fi mës jàll Casamance moo fi ëppale ay mort c'est pas une accusation c'est un fait 21 euh, mars 2021 Casamance la ñu deele amul beneen région bu ko deele ci manifestation yi ñu génn loolee ban conclusion lañ ci mën a téye mm, euh, ba doo fekk si li Sonko di waxtu non damay non seetaan laay bàyyi ñu conclure seen bopp en tout cas euh, ñëpp ñi ñi ngi ñaanal ki nga xamante ni moom moo Idrissa Goudiaby euh, suuf Ziguinchor oyof toll ci kawam parce que tamit ku mm-hmm. nekk boo amee néew même ci dina neex ñi la nit bu faatoo ñi ngi xaar ko ñu enterré ko plus vite a mu jógee et puis euh, plus jamais ça parce que manifestation droit la bi nga xam ne ñu ko dëxan ci constitution bi donc kenn waru ci ñàkk li nga xamante ni moo di bakkanam grand beneen actualité bi nga xamante ni bëgg naa am ci sa gis-gis mhm. euh, tey nag Sénégal rawatina Dakar Ndiaye dañu am gan gu mag mhm. euh, muy ki nga xamante ni moo fi nekkoon suñu président di maître Abdoulaye Wade Pape Dusopi tey mu fulewaat solu Sénégal ngir mën a teewee li nga xamante ni moo di élection moom mooy tête de liste Mhm. waaw euh, man bi ma gisee engouement ak euh, perception bi nga xamante ne sénégalais am nañ ko ci ñëw Ablaye Wade bi dama ni euh, wadd n'a rien perdu de sa popularité. Mm. Wade n'a rien perdu vraiment ci estime bi nga xamante ne sénégalais yi am nañ ko ci moom. Mm. waaye également les sénégalais sont nostalgiques. du régime libéral loolu jàngat gis naa ko ci. Mm. Euh, il est évident que coalition c' tout à fait normal puisque dafa am intercoalition wallu ak euh, yeewi donc c' tout à fait normal ki nga xamante ni moom mooy tëdd liste nationale du euh, régime. li ko waral bëri na libéral puisque ni président Macky Sall c' est un waaw xam nga président yi fi jot a jaar yëpp kenn ku ci nekk am na loo def. Mm. vraiment man je ne suis pas du tout nihiliste taxaw ne Macky Sall def fi dara loolu moom wax ku ko wax moom da wax leen da nga naan kañ. li mu defagul li li li mu war a mottali mu des na li mu li koy xaar ak li mu def mën naa néew mën nga critiquer bilan mais au moins tax man je ne suis pas nihiliste du ma taxaw mukk ne Macky Sall defu fi dara def na fi dara mm. président bu fi jaar def na ko fi dara mais man maa conviction profonde mooy Ablaye Wade li mu fi def amul benn président Sénégal bu ko fi def de Senghor à Macky mais pourtant nag nit ñi bañ koy wàccee dañoo fàttali nga xamante lépp moom lañ fi def. Euh, a def. loo gis tey ñaari mouvement créé nañ ko na ñu créé mouvement Réccu Fal Macky am ne wàdd baal ñu dañoo juum buñ jógoon dugg na fi teggi man li ma gëm mooy Ablaye Wade li mu fi def amul benn président bu ko fi def de Senghor à Sall parce que kenn ku ci nekk am na jalon boo posé Senghor a créé la nation Diouf a consolidé l' état de droit Ablaye Wade a créé les conditions de l' émergence donc il a du mérite le président Abdoulaye Wade a beaucoup de mérite yoo xamante sénégal sénégalais tey moom moo tax estime bi ñu am ci moom ak tamit popularité bi nga xamante ne saa su ne ñu ngi koy manifester tey mu gën a fës ñu am mbégte lool ci li nga xamante ni moom mooy ñëw bi ñëw te gis nga nii nga xamante ne noonu lañ ko manifester donc vraiment kenn la koo xamante ne ku Sénégal war a jaajëfal man dama jàpp ne sax. Euh, dayo bi ñu ko jox sax waroon na weesu fii waruñu xaar ba gisatuñ ko nii muy dundee te ñu ngi koy ñaanal yàlla doole ko gudd fan ak wér mhm. mais vraiment symbole la pour Sénégal def na ci Sénégal loo xamante ne kenn dootu ko fàtte mais ñëwam tey ji ban plus la war a mën a apporter également euh, ci ngi fàttaliku at local 2014 tournée bi nga xamante ne le président Wade na ko dans le nord ay Matam ak zone yooyu noonu mhm. mais fépp fu mu jaar pour soutenir candidat boobu ñooñu falu nañ nekk maire donc ñoom sa voix est prépondérante son soutien est déterminant pour victoire ko intercoalition wàllu ak yeewi. est-ce tamit gisul peut euh, am ci local yi euh, loolu dafa bu baax noonu joué baax en sa faveur moo tax tey jii peut lu nga xamante ni tënkoon na ko. Mhm. daal ñëw parce que je rappelle que ni mat na at bi mu gëjee fii ci Sénégal. waaw loolu am na mais tamit boo xoolee gis nga législative yi xam nga. boo doon xool ci ñetti élève type d' élection yi am Sénégal présidentielle législative locale boo xoolee législative moo ci gën a impopulaire mooy élection bi gën a impopulaire Sénégal mais mais bii nu jëm nii moom bii moom Sénégal bii c' est <laughs> très nga bii enjeu yi mu am mm. amul benn législative bu mës a jàll bu ko am parce que enjeu yi mooy lan pour la première fois opposition li ñu bëgg mooy cohabitation imposer cohabitation à la majorité présidentielle mm-hmm. cohabitation mooy ñoom député yi euh, ma opposition ëppale pour la gouverne des sénégalais am na ci ñoo xamante ni il faut ñu comprendre. Mm-hmm. bu fekkente ni dép opposition moo ëppale député majorité dafa am ay conséquences. Mm-hmm. conséquences yi mooy opposition ñooy jiite assemblée nationale. opposition ñooy fal le premier ministre. Mm-hmm. donc ñoo contrôler les membres du gouvernement. troisième chose. pouvoir bi Macky day bu boobaa day jiite nii rek. Mm. daanaka benn xusuma ñàpp lay doon ci bopp réew mi rek mais. dootul sa pouvoir am dootul yaatu. parce que bu boobaa loi bu mu bëgg assemblée nationale du jàll. Mm. te ñeen loi bu ñu fi bëgg jëlee dañ koy jël. bu ñu neexee rek indi fi loi mm. boobaa la loi du plus fort lay nekk. voilà donc loolu loolu mooy li nga xamante moom moo ci aju en mais en tout cas euh, donc ñëw Abdoulaye Wade tey jii mun naa ni euh, fan ñu nekk nii bëri na lool ay yëngu-yëngu yu am euh, ñoom euh, ci seen biir euh, nit ñu quitté dem transhumance bi nekkaat vraiment d'actualité dinañ ci gën a ñëw ci kanam tuuti. Mhm. donc beneen mbir bu nga xamante ne également fës na lool ci actualité tey nag xam nga ni ñun suñu mbokk taskatu xabaar yi dañ doon amal tey janoog taskatu